mbokk yi safoo leeru jamono Walfadjri ñu leen di jaajëfal ngeen nekk ba léegi ci grand soir gannaaw diine ak jamono ak uh, Ousmane Sène fego woon ak ay uh, ganam amaloon waxtaan gu am solo boo xamante ne yaakaar naa ne tënk gi ibbi na lu lëndëmoon mu leeral ko kon ibbi na waat xel yi ci ponk gi nga xamante ne yaatal nañ ko tey ak gan yi nga xamante ne moom la ci àndaloon wal fajri leeru jamono ni ma koy waxee askan wee ko tax a jug lépp loo xamante ne moo di seen soxla ca lay teg tànkam géem cee indi ab saafara jëm cee gindi itam ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan wi gindi gi nag alxames duñ ca yem foofu gindi gi bokk na ci diine gi diine gi nag suñ ko waxee dañuy ci li nga xamante ne moom moo di euh, fatwa Oustaz Assane maa ngi lay nuyu. Euh, soxna Awa Diop Ndiaye ñu ngi lay fay di nuyu sa mboolem waa Grand Soir yi ñu seetaanee fu mu mënti doon ci àdduna bi. jërëjëf euh, oustaz Assane kon ni ma ko waxee troisième parti alxemes bu jot yem ak guddi àjjuma fatwa lañ ci àndal oustaz Assane Diouf feggoo ci ak ki nga xamante ne moom moo di oustaz Adi Niass ak seenub gan ñu leen di ziar ñoom ñëpp. di leen wax ne nag euh, fatwa mun ngeen a wéy di yónnee seen laaj ci page Facebook bu fatwa bu boobaa oustaz Assane feggoo ko oustaz Hady dinañ ci indi ay tontu gindi leen indi leen ay leeral ci lépp loo xamante ne umpale ngeen ko si seen euh, dundin rawatina. gi ak doxalinu jamono ak doxalinu àdduna Oustaz Assane dañ lay bàyyeek euh, say gan ci li nga xamante ne moom moo di fatwa su noppee nag ñu ñëw ndar képp li nga xamante ni moom moo di grand soir jërëjëf euh, Awa Diop Ndiaye ñu ñaanal euh, guddik jàmm ñaanal ko mboolem ñu ñu seetaanee ci biir réew mi ak ci bitim réew bu ko defee rek ni nga ko waxee jotaayu gindeeku la ci kanam tuuti incha allah dinañu indi sujet bu am solo ndax ñu ngi ci euh, période ñu ngi ci jamonoom duma ko wax léegi waaye ci kanam tuuti rek balaa après jingal bi rek ngeen ko. incha allah incha allah. xayaa الأسبوعي Fatwa di émission bu leen radio télévision Walfadjri di defal ay bés bu jot ci waxtu wi ak oustaz Hady Niass fataawa ani diini wal xayaa برنامج أسبوعي يقدمه العالم العلامة Fatwa di émission bu leen radio télévision Walfadjri di defal ay bés bu jot ci waxtu wi ak oustaz alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala majmaci shuunihi wa xaqiqati kunhi sirrihi sayidina muhammadin bahjatil kawni wa diyaa'ihi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew tànn loo muy rajo télévision bool wal fajri fu ngeen mun di nekk ci àdduna bi maa ngi leen di boole juróomi baat yi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walis ko ñu tibbee ko ci suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di del siwaat ci kartanal yàlla fas yéene ànd ak yéen seen émission bi di fatwa ngeen baax koo am guddeeg àjjuma gu jot ci waxtu wi ànd ci ak seen mbokk seen xarit al oustaz Xasan Diouf al oustaz Xasan ñi amati gan gu tedd tabaarakallaahu jaar na fi jaaraat fi bàyyi fi waxtaan yoo xam ne des na fi di waxtaan alxaaji tafsir caam bàyyi ko ba Kaffrine fas yéene ànd ak ñun tey ci fatwa bi ñu war koo dalal ci al israa wal miraaj ndax ñu ngi dëgmal ay guddeem tabaarakallaahu mu indil ñu mawdoo boobu nga xam ni mawdoo saa kon al oustaz Xasan ma jox la nga dalal suñu gan gu tey. jërëjëf oustaz Hadi ni nga ko waxee noonu la ginnaaw bi ñu mbokk yi ñu seetaanee ci biir àdduna bi yëpp tatagal leen ci émission bii di fatwa ni nga ko waxee oustaz Tafsir. jaar na fi jaaraat fii waaye saa yu fi jaar rek bàyyi fi xam-xam boo xam ne mënees na ko jariñoo ci suñu wàllu diine tey nag mu indi benn sujet bu am solo anniversaire u julli waaye itam mooy kado euh, boobu nga xam ne mooy kado asamaan bu ñu wàccee ci suuf mooy benn ponk boo xam ne bi koy yonent bi di waaj a jot dafa yàlla daf ko woo jox ko ko bokkul ak mu wàccee ko fekk ko ci suuf kon um, loolu war a mën a indi ay njàngat yu bare bare bare bare ci wàllu woowu tolluwaayu julli ci biir euh, farata yi nga xam ne faratay diine la ponk diine la waaye itam tolluwaayu euh, julli ci li nga xam ne dafay defar jikko ndax loolu moo ko tax a jóg euh, tolluwaayu julli ci wàllu dajale askan yi ci fi ñuy jullee yooyu yëpp incha allah oustaz dinañ ko waxal oustaz ginnaaw bi ñu la tatagalee ci plateau bi rek nga baaxee li nga leen indil te aju ci wàllu rañaanuk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak kado bi mu ñu indil di julli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 mooy comme tey ñi ngi toll ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu ko yàlla defaloon ci weer wii nii mooy al isra wal miraaj naa ne dana jaadu ñu mën ci am tomb loolu nag alquran moo ko indi baad aoudu billahi min asheytan rajim bismillah subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa allazi barakna xawlahu li nuriyahu min ayatina innu wasamiul basir waaye ustaas Euh, saar woowu noonu aay ba wàcc saar la boo xam ne bi doyoon na moom kenn kese alquran parce que suñ borom tabaaraka wa taala dafa tënk si biir saar wi mbir yoo xam ne bi képp ku ko jëfandikoo sa mbir dana jag adduna jag àllaaxira ndax lim ci tere si biir saar wi nga xam ne indi na ko te aay alquran la mën na fukki mbir ak ñaar loo xam ne bi dafay wax laa laa tajal ma allahi ilaan ku ko jëfandikoo bul def yàlla mu ànd keneen nga xam ni boo defee yàlla mu ànd kenn fa taqu dama lu man masuran kon da kon yàlla képp ku ko am boole keneen da am problème sa aaya ba si biir biir saar wii nii daf sa tegal loo xam dañ koy defee tamhid liñ bëgg a wax wa qadaa rabbuka allaa taabudu illa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaanan dafa sa tere na bul jaamu bul dogal na bul jaamu kenn ku dul yàlla waaye na nga rafetal sa ñaari waajur sa biir aaya ba tere na le boo xam ne wala tanharhumaa bu leen gëdd boo xam ne sa biir aaya ba wala taqulu ma uffin bu leen wax mbas bu ko waxul mbas yaakaar noo doo wax leneen léegi nag nit ñi saaga la ñuy def saaga la ñuy def seen waajur yi poñu dóor al si waaye si saar wii nii si la yàlla waxee ne bu leen rey doom wala imlaqin ndax narsuqum iyaawum si saar bii ni si la yàlla ne wala taqrabu zina bul jege njaalo si saar bii ni si la yàlla waxee ne wala taqtulu nafsa allati harrama allah illa bilhaq si saar bii ni si la yàlla waxee ne wala taqrabu mal yatami illa billati hiya si saar bii si la yàlla waxe ma wala taxfu maa laysa laka bi ilmun inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulay kaana anu masulan si saar bi ne si yàlla waxee ne wala tamsi fil ardi marahan innaka lan taxriqa al arda walan tabluqa al jibal tulan muy fukki mbir ak ñaar yoo xam suñu borom tabaraka wa taala tënk na ko si biir saar bi ne bul ko def yaakaar na lii dong suñ ko jëfee woon ni ko yàlla waxee ñu defee ko ko nga xam ne duñ bokkaale ak yàlla duñu jaamu kenn ku dul yàlla suñu waajur yi duñ leen gëdd duñu leen tooñ suñu waajur duñ leen xas duñu rey bakkan si ba anam bu mën a doonee Euh, lu ñuy xam ne médicament la ñuy jëfandikoo duñ njaaloo duñ rey duñ jege àllu jirim duñ gëstu lu suñu yoon nekkul duñ dox doxin woo xam ne bi dañuy dox mel ni kuy pukkale tiituru kon yaakaar na adduna bi dana jag yaakaar na saar bi kon dafa nekk loo xam ne suñu borom tabaraka wa taala ci biir saar bi wax na ne képp koo xam ne da ngaa jàng alquran man maa lay aar isaa xaratal quran ja'alna baynaka wa bayna seen laam bi laqi jaa masuran si biir saar bi nii si la yàllay waxee ne na nga wut wasila wasiila mooy koo xam ne bii da nga yaakaar ne sa borom sa diggante ak sa borom kat man mënumaa fexe ba jaar la waaye nga wut wasiila boo xam ne bii walaayka la si yeddoon yëpp taxoon illaa rabbun wasiila ayyum aqrab waaye si biir saar bii si la yàlla xamalee na jaamu yàlla dëgg-dëgg jaamu yàlla saytaane moom la ko yoon moo ne bi an ibaadi laysa laka alayhim sultaanu kon si biir saar bi ci la yàlla y waxeen doomu aadama li ko yàlla defal wa laqad karam naa bani aadama wa xamal naam fil barri wal bahri wa razaqnaa min at tayibaat ci saar wi la nekke waaye saar bi itam ci la yàlla xamee ne ruuhu mbirum boppam la waaye du mbirum nit qul yasalunaka ani ruux qul ruuhu min am rabbi yaakaar naa si biir saar bii nii si li yàlla waxee woon a fexe ba bind alquran qul ajni tamaatil insu wal jinnu ala an yaatu misli hasal quran wax xam ne saar bi lay jëriñ waaye saar am na lu si ñëw loo xam ne bi sëriñ war na koo jëfandikoo keneen war na koo jëfandikoo muy wan sëriñ loo doon doon sëriñ ak loo doon doon yonent da nga war am fulla ak fayda yonent yàlla Muusaa ba mu dajeeg Firawna si biir saar bii nii si lañ xuloo Moussa dafa wax ne Firawna dafa wax Moussa nekk inni la azunnuka yaa Moussa masuran waaye Moussa dafa tontu wa inni la azunnuka yaa Firawna masburan mooy kon nit dafa war am fullaak fayda ba loo nekk nekk ci diine doo yaafus ba bu la diine jaralee ñëw bu ñëwee da am taxaw sa fullaak fayda ba lépp lu ko nekk nga war koo joxe kon nag saar bii ne dañ doon def tamit pour wax li ci nekk nga xam ne bi alquran jii di wax ni ar nga xam ne bi nit ñi yéeféeri gëmuñ woon li yonent bi li mu def loolu ndax lay sax lañ ko waxee nag wala numina ruqiyaka hatta tunzila alayna kitaaban naqrahu waaye yonent bi xool lim topp lim tontu qul subhaana rabbi hal kuntu illa basaran rasulan man bi bindef laa comme yéen rek luñ ma indi dañ ma ko wax yu waaye du ma wax lu nekkul kon nag loolu mooy dañ doon def dañ koy def tamit ñu dogal bu nag ci li nga xam ne bii moom mooy muy al isra wal miraj yonent bi alayhi salatu wasalaam nett li bi mu ci nekk di nga xam ne bi mu koy nett li boobu mi ngi ci ba néeg ummu haani la nekk néeg ummu haani la nekk mu ne ummahaan yi dañ koy waxee faaqita yenn saa dañ ko tuddee loolu si guddik altine la doon ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si rajab boo fekk bi ñu yónnee yonent bi juróom-ñetti at la am Faatimata boobu mi ngi am juróom-ñeenti at nekk ci néeg bi moog yonent bi alayhi salaatu salaam boobu mayeguñ ko Aliyu am ku fëgg bunt bi Fatima génn xool gis nee na laafam yi daj na adduna bi kàpp mu ne ko koo soxla mu ne ko Muhammad waaye dafa am taxawaay bu yar taxaw xool foofu jigéen yoo xam ne bi jigéen la mi ngi am juróom-ñeenti at waaye génn waaye tiit malgré jibril li muy mel melokaan mooy booba dañoo def si moom yar boo xam ne bi amul dara lu ko mën a tiital ñun léegi tey ku fi génnoon yaakaar naa gis xar sax guddi bu soobee yàlla da nga tiit ba da wax lu nekk waaye tiitut dafa ñëw na sama papa am na ku lay laaj mu génn gis jibril alayhi salaatu salaam mi ngi taxaw jibril bi mu taxawee mu laaj ko ne ko lan la xew jibril ndax dafa am mbir mu wàcc wala dafa am lu yàlla dogal mu ko déer suñu borom tabaraka wa taala moo la invité tey sala àndeek moom dem ci àll bi fekk alburax mi ngi taxaw alburax melokaan wu yonent bi alayhi salaatu salaam nee na taar boobu kenn mësu ko gis moo dàq adduna ak li ci biiram bi bi mu ñëwee nag alburax li mu njëkk a wax dafa am lu fu ñu dara taxaw wax itam alburax bi mu ko bëggee war dafay lox mel ni jën jibril na ko amal yar teggin ci kanam kan kanam yu yonent bi alayhi def ñun ay doomu aadama alburax xam ne bii dafa ñëw jël si yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ne ko amal teggin kon ñun lan war a def bi mu amee yar ak teggin mu ne ko nag balaa moo war ci man daf may waral na ma ëllëg dana ma ramm waaw kon ñun yonent bi alayhi salaatu salaam bu ñu ne ëllëg duñu ramm kon fu ñu jëm alburaax mooy ñaan te aljana lañ ko jëlee muy ñaan ëllëg na ko yonent bi ramm kon bu fekkee nga xam ne ñun ñii xam ne bi ay julit lañ yaakaar nañ war nañoo bàyyi xel di ñaan leneen jibril alayhi salaatu wasalaam ne alburaax yarul ndax kii nii jël si la tey jii moo gën si yàlla bind alayhi salaatu wasalaam mu ne ko man yóbbu naa aadama yóbbu naa ibrahima mu ne ko kii soppe yàlla yow ñi ngi may waxal ñëpp kii soppe yàlla la soppe yàlla nag da nga ko war a yóbbu ci la alburaax nag nangoo yonent bi di di melal alburaax te tolluwu ni fas tollu ni gëlëm ñu koy tuddee baax la mun a kanam gi comme kanamu doomu aadama la yaramam yi comme yaramu fas la daa daaba la boo xam ne moo gën adduna nag li ci biiram njañ li nga xam ne bi moom moo nekk njañ li ne ci doxam gi donc moo gën a xet ga fa nekk na mu gën a foore loolu yëpp waaye loolu lépp li ci bëgg jublu mooy mu war ko nag fan la jëm nag léegi moom alayhi salaatu wasalaam fan la ko suñu borom tabaraka wa taala jëmee si kaw kaw boppam la ko jëmee moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg nag xam la yàlla li mu koy won yàlla wonu ko leen lu meeg bëgg koo ganale yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yéemu naa ci alburax gisuguma ko rafetee ni moom lu man a lu mas a rafetee ni moom gisuma ko jibril ne ko alayhi salaatu salaam wax yonent bi na ko yéegal léegi nag ñu dem yoon alburaax alburaax la muy yaru yor nga xam ne alburaax am na taxawaay waaye comme temps bi dafay xat alburaax dañuy wax ne moom ci ñi nga xam ne bii dañ noon dana am koo xam ne bii ab yonent dana ñëw war si koom kii gën si yonent yi moom mu xeeboon boppam na man de loolu eyoowuma ko si la ko yàlla tànnee xam ne kii kat comme jaam la bu xeebu man dinaa ko tànn waral ko loolu bëggal ko sama bopp alayhi salaatu wasalaam waaye si la ko yonent bi waree am ku yuuxu si nday jooram ne ko taxawal yaa ma amat dama lay laaye biir ak sa xeet wi mun ne ma dox faaliwu ma mu ne mu dem ba mu yàgg am ku yuuxu ci càmmooyam dama lay laayee biir yàgg yow Muhammad yàgg sa xeet wi taxawut mu konte dem dem ba mu yàgg am koo xam ne bi jigéen ju rafet lool yoo xam ne bi taaram ba kenn mësta gis lu or ma nga ko takk wurus wa dur wal yaquuta lépp ma nga taxawaay sa taaram ba mi ngi woote naan ko yow Muhammad taxawal ba ma waxee ak yow waaye waxut ak moom <coughs> maa ngi kaay ma laay la biir mu ne ko bul ma laayee biir waaye tontuwut bi mu demee am ko ko woo mu nee na mu ñëw fekk benn jëmm ju taxaw ju rafet mu nuyuwanteeg moom fóon ko nuyuwanteeg moom doqante moom aqbala wa sallama alayhi wa anaqni wa anaqtu nee na mu fàddu ma mu yonent bi alayhi salaatu salaam ma laaj jibril na ko nag ki ma woon ci ndeyjoor kan la ki ma woon ci càmmooy kan la jigéen ji kan la mu ne ko nasraani ñoo la doon woo ci ndeyjoor yaxuur yi ñoo la doon woo ci càmmooy jigéen ji mooy adduna mu ne ko nag ku rafet kii mooy sa diina ji yow yonent bi alayhi salaatu salaam sa diina ji ci la ñëpp xeetu yonent almaama diinam ji mooy diina ji gën ci diina ji bi mu agsee nag si baytul maqdis fa la njëkk a agsi jibril alayhi salaatu wasalaam dugg andil ko ñetti kaas kaas bi sàngara moo ci nekk kaas bi ndox si nekk kaas bi meew moo ci nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam tànn meew mi naan ko ba mu des tuuti mu delloo ko mun ne ko soo naanoon sàngara si kon sa xeet wi kon ëddun nag soo naanoon meew mi kon sa kon ndox mi sa xeet wi kon dañuy lab waaye meew mi nga naan sa xeet wi bu fekkoon jeex na kon ñëpp danañ jub alayhi salaatu salaam ci la commencé nag li ñu tuddee yaa hmm. aadi su fekkee am tax li xam ni kon insha hmm. euh, mu nekk di waxtaan wu am solo oustaz hmm. waaye itam euh, indi na ay tomb yoo xam ne jar na gas ndax yonente bi sallallahu alayhi wa yooyu ñu ko woon te nga junj ko mu ngi mel ne kon yooyu dafa doon daf ko doon euh, misaale xeetam ci ne nañu ràññatle ñaar lu baax hmm. ak lu ak lu ak lu neex hmm. dara mën na neex te fekk baaxul waaye lu baax moo jar a def euh, mu mel ne itam am na tomb boo xam ne xam naa ci kanam euh, bëgg naa nga gasaat ñu ko ndax coow daf ci jib ci diggante boroom xam-xam yi muy ndax isra wala miraaj bi ci yaram wi la wala ci ruux bi la. loolu itam euh, balaa ñuy jox oustaz Adi. boo ci mënoon càmbar tuuti. waaw ñu bëri ñu ëpp daal yaram bi lañ wax. Hmm. parce que li ñu wax mooy ñu ne karaama amul si nelaw nelaw kese ak gént amul amul mucjisa. Hmm. konoon duñ ko du doon kiimaan ba yàlla di ko tuddal alquran. nitu kese kese sax mën na mën dem màkk léegi ñëw ci xalaat gént hmm. ñëppay gént bu doon loolu kon duñ ko jagle yonent bi nga xam ne bi dañ koy waxal ne ko lii def na ko ko wàccee di ko siti mu nekk itam ndam si moom nekk di si moom bu doon ruuxu la kon ruuxu ñëpp dañuy gént ku hmm. nekkee dem fu la nekk waaye gént konoon ndax ba yonent yàlla ibrahima génte daf ne inni arafil manaam yonent yàlla yusuf ba mu géntee dafa ne gént naa waaye yonent yi waxut gént naa yàlla waxut ko gént subhaana si asra bi abdi yi kon jëmm ji la wax abdihi laylan la wax kon kon ñu bëree bëri aïcha am na si werante waaye ñu bëri dañ ne aïcha bi lii di am boobu ñëwagul si yonent bi kon mënu see waxal nit ñi loo xam ne bi lu wér la parce que lii bi muy am booba aïcha ñëwagul si loxo yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon loolu borom xam-xam yi lan gën a lëngal mooy jëmum ji la ñu ràññaan nii ak lépp te loolu du jombi si yàlla du du kiimaan boo xam dañ naan yàlla inna allah ala kulli shay'in qadirun ndax yàlla mën na lu nekk kon du jombi si yàlla mu ràñaane yonent bi jëmam ji ba jàkkaarloo moom fa kaana si qawsin aw adna fa awha ila abdihi ma awha waaye ma kasabal fa addu mara kon yonent bi alayhi salatu salaam loolu yàlla may ko loolu ndax du dara si yàlla yàlla may ko mu ñëw si moom kon ki nga xam ne bii ndax li ko yàlla defal mu turam lu gën a foor loolu amul ah wa rafa'naa laka zikrak foo ne allah laa ilaha illallah teg sa Muhammadu Rasulullah loolu moo gën a foor lu nekk sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne fu ñu tuddee turu yàlla teg turu yonent bi alayhi salaam foo jullee si moom yàlla bind la tiyaabo foo ko foo ko foo ko ñàkkee teggin sax li nga jëfoon sippeeku yaa ayyuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi wattaqullaha inna llaha samiun alim yaa ayyuha alladina laa tarfau aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bilqawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum laa tash'urun boo nekkee ci kanamam sax ñàkk teggin li nga jëfoon sippiku kon kay wax dëgg yàlla kii jëmmam ji wax dëgg yàlla yàlla ormal na ko mm. defar na ko ba mën naa rañaan yaakaar na mën naa dem fu nekk war naa mën a dem fu nekk rañaan li yàlla rañaan bi li si am ci biir gi xanaa ruuxu kon mooy wax ak ruuxu mm. wala ruuxu lañ jox kon julli gi kon koy ruuxu war a julli mm. alayhi salaatu salaam waaye yaakaar na jëmm ji lañ ko jox jëmm ji mooy wax ak mooy ñëw wax ak ñun nettali ko ba mu nettali ko ñi ko gëm gëm ko ñi ko weddi weddi ko waaye Seydina Abubakar Sadiq si ñi ko njëkk gëm la gëm xam ne moom lii lu mu wax li ma koy gëmal xabaari asamaan laa koy gëmal asamaan xabaar boo xam ne moo ko wax hmm, te boo seetee aaya bi sax euh, waxul sara dafa ne asra waaw asra la maanaam yàlla ci boppam moo ko moo ko tungoom hmm. ku yàlla tungoom nag fu ñu wax ne àgg nga fa rek war nga ko mën a passé hmm, euh, oustaz Adi euh, looy sof ci wàll woowu ci ay mbind yoo xam ne mënees na ko jëlee ci euh, xew-xew bu rëy boobu ci lislaam Oustaz Assane euh, menn tukki la mu làmboo ñaari tukki mhm. tukki mu njëkk mi tukkeem suuf la tukkeem ñaareel mi tukkeem asamaan la kon benn xeer la mu jëm ci ñaari pitax mhm. euh, xeer wu njëkk bi moom la tuddee israa'u mhm. israaw buñ ko tuddee luxatan rek mooy dox guddi waaye buñ ko tuddee nag sharaan mooy bàyyeekoo gi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyeekoo masjidul haram ci néeg Ummu Hani yéeg ci kaw benn daxa ba bu ñu tuddee buraaq gaawaay ba mooy bët ba fu bët ba tege tànk ba tege fa su ko defee ñu ñaar fukki junnee malaaka ci ndeyjoor ñi ci càmmooy ñi ci gannaaw ñi ci kanam mu jëm ba yegg baytil muqaddas fekk fa mbooleem yonantu yi ñu toog di ko xaar mu ñëw jiite leen ñaari rakkaa fekk na ñoom booba juróom ñaari sàppe lañ defoon ñeenti sàppe ya mooy ñu ñu ña di anbiyaa u ya ñetti sàppe ya mooy ñu ñu yónni ña suñ waxee isra foofu la yem miraaj nag moo bàyyee ko ci baytil muqaddas jéggi première asamaan fekk fa aadama jël bu ñaareel bu ñetteel bu ñeenteel ba juróom-ñaareel dem ba paase sidratul muntaha jibril yam foofa ba paase arasa kursiyu dama dem ba féetee kaw-kaw giseeg sama borom mu yëkkati teraanga ju réy jam ko defal lañ ca mën a tudd mooy julli ak yeneen teraanga yoo xam ne ni kenn mënu koo tudd ndax dafa ne fa awxa ila abdihi ma awxa su ko defee nag euh, jëmmu jeeg rooxu gi yépp a dem comme ni ko imaam Tamsir waxee ndax bu doon rooxu ga rek du jar yàlla di wax subhaana kon du xubbee saar wi ci baatu subhaana mooy tudd na ma sell ak buur ba nga xam ne ñaareel bi su fekkoon ne rooxu gi rek a dem du wax ne bi abdihi waaye day wax ne bi rooxihi ndax baata baatab abdu ci luxatul arabiya arab du ko wax lu dul jëmm ju ànd rooxu waaye du kon loolu moo tax kon jëmm ji ak ruux gi yëpp ñoo ànd dem loolu nag nekk lu yéemoo yéemu moo tax ba ko yàlla lay nettali sax ne subhaanalladi asra euh, mu ngi mel ni nag soo ko nattee ci sa xel rek mu daane la waaye que boo ko nattee ci ngëm rek mën ko yóbbuwaale soo ko doon comparer ci ji jamono dangay wax ne rek boo jëloon lu mel ni mbott ca doxaayam bu yéex booba mu taxaw ne démb di Amérique laa reeree ñëw ndékkee ci fii ci senegal nga tax nga weddi ko ca doxaayam ba def nga erreur da nga koy laaj ni ko lu la yóbbu soo ko waxee loolu ba pare ci ngay door a xam fi ngay teg sa tànk yonentu tamit li jox coow li ba waaye yàlla wax ne maa ko demee yàlla moomu nag kartanam la lottul ci dara mu jaax jox ko teraanga ju rëy jooju am ci loo xam ne lu ñuy gëm la am ci mu nekk teraanga joo xam ne lépp lañu war a gëm waaye am ci loo xam ne tamit boo ko tegee ci sa xel dana la yóbboo nga am loo ca weddi te boo ko defee tamit da nga yàqule moom israa gi ak mi'raaj gi yëpp guddi la ñu ne lu tax yàlla defut ko woon bëccëg li ko woon kay coow li jeex ñu ne bu ne woon bëccëg teraanga wala maanaam manoore du nekk ci dëggal ki ko dëggal ndax lu ñëpp jàkkaarloo ko dëgg ko dëggal tamit amatoo ndam ndax nga ko dëggal lu dëggu ndam ne mu ca ñu naka noonu tamit bu nekkoon bëccëg ku ko xas ci gàcca ndax weddi lu weddi wu tamit weddi loo tegul sa bët loo xam ne tamit ñëpp a ci teg bët nga weddi ko kooka am amat amatoo gàcca waaye nekk gi mu nekk guddee tax nag dëggal ko teraanga ju rëy nekk ca weddi ko tamit mbugal mu rëy rëy maanaam nekk ca waaye tamit rooxul bayaan dafa ne guddi la ko ko defal ñu ne ko lu tax mu ne guddi mooy waxtu tàpp soppe ca soppeem ba mooy waxtu noppalu mooy waxtu dal te loolu dal ak noppalu ak tàpp xarit ca xaribta ca soppem ba loola xeet la ci maanaam euh, xéewal te xéewal tamit xeet la ci aljana kon guddi moo gën a niru aljana ci bëccëg moo tax tamit israaw gi ak mihraaj gi yëpp yàlla def ko muy guddi moo abdihi mu ne laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi barak naa xawlahu lépp nag mooy leen nuriyahu min ayatina al kubra mm. kon xasan israaw mihraaj mm. Euh, neexut a tënk ndax dafa nekk lu sakkan lu yaatu loo xam ne li ci nekk ci ay manoore nekk ci ci ay may nekk ci ci ay ngëneel bu boroom xam-xam yëpp defoon congrès di ca wax tamit duñ ko mën a jeexal kon buñ fi jëlee tey tabaarakalaahu imaam Tamsir mu ñëw indil ñu ko ubbee li saar wi ëmb lépp ci ay tere mu wax ñu ko wane ne saaru suratul isra saar la woo xam ne moom kenn dong bu wàccoon ci alquran liñ ci lu ñu war a mën a jariñoo mu mën ñoo jariñ mi ngi ci lépp lu ñuy mën a lor boo xam ne bu ko bàyyee mu mën ñoo lor mi ngi ci yàlla tere ñu ko mu jël nag tere yooyu yëpp benn par benn tudd ko ci door a dugg nag ci li yàlla ubbee saar wi di isra woo miraaj bi kon ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm di ñaanal yàlla bëril ay kemam hmm. dolli ko te dooleel ko ndax mën nañu wax ne euh, jokkoo gi tay rek la mm-hmm. mu mu ñëw tamit te booba mi ngi bëgg a ngoon mm-hmm. bu ñu indilee lii kon dañ ko ci sant bu baax te di ko gërëm di ko ñaanal yàlla bu baax Oustaz Assane mm-hmm. jërëjëf Oustaz Hady ci loolu nga ci njàmbaas muy lu am solo Oustaz Tamsir xam na ca fa nga njàmbaasal benn laaj muy euh, Isra wal Mi'raj boobu nga xam ne am na mu ngi mel ni yàlla daf ko defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour defal ko itam ndax coono yi mu doon jànkoonteel ak waa Quraysh ak weddi bi ñu ko doon weddi mu nekk itam ngir dëgëral ñi nga xam ne gëm nañu yàlla ndax Aboubacar bi ñu ko ko waxee dafa wax ne bu fekkente ne yonent bi moo ko wax rek am na xanaa kay li muy sikk mooy ne ndax yonent bi moo ko wax euh, waaye bu dee moom moo ko wax rek am na mu mel ni itam loolu terewul yéefar yi gën a dëgër ci seenu weddi ba am na ñu ko taxawal sax ne yëkkatil sa benn tànk mu yëkkati ñu ne yëkkatil beneen bi mu ne ko bu ma ko defee daanu ñu ne kon nooy demee ci asamaan te fekk loolu nga seet rek mu ngi mel ne daal xéewal lay doon rek boo xam ne yàlla la koy jox waaye nekkul sax di kawtif boo xam nga hmm. yàlla dafa wax alquran walakin allah hababa ilaykum al iman hmm. wa zayyanu fi qulubikum wa karaha ilaykum al kufra hmm. wal fusuqa wal isyan ngëm dimbal yàlla yàllaa koy def ci nit yàllaa koy bëgg ci nit rek nga kii waaye bu ko yàlla bëggul ci yow bu leen nit ñi doon waar guddeeg bëccëg walaw annana nazarna ilayhim al malaika wa kallamumul mawta wa asharna alayhim kulli shay'in qubla ma kaanu liyuminu illa insha allah hmm. hmm. wallaahi masha allah malaaka yi lépp lu wax duñ gëm ko lu may dafa neex yàlla kon ngëm dafa nekk yàlla mbir moo xam ne yàlla ndax yàlla ba yonent bi sonnee ba sonn sax la mu ko tegal na ko afa an tukruna hatta yakunu mu'minin hmm. ndax da bëgg forcé nit ñi bañ gëm waaye loolu dafa pour ñu dalal yonent bi alayhi salaatu salaam mu itam mu xam hmm. waaye xam na ba noppi waaye mu gën a dëgg ndax yonent bi mooy njëkk a gëm boppam amana rasulu bi maa unzila ilayhi min rabbi hmm. moo gëm li ko yàlla njëkk a wàccee julli doo gëm waaye Seydina Ababacar Sadiq dafa nekkoon nag royuwaay boo xam ne bi moom lu yonent bi mas a wax loolu muy murid Sadiq hmm. daawul werante lu yonent bi wax lu yonent bi wax dëggal na ko gëm na ko moo xam nu mënte kaa mel yoonam new si lii def na ko ndax xam na du wen du fen wa maa yantiqu anil hawaa yàllaa ko seetal du wax bànnee xam lu mu wax dëgg la hmm. looloo tax na kon isra ak miraaj dafay nekk loo xam ne bi kon jullit daf see war a jàngee xam ne yonent bi li ko yàlla defal nii nga xam lan la gis nga dafa am benn téere boo imaam Maalik di wax ne ana yonent bi li ko yàlla defal doy na benn teraanga mu a ana ban xabru yonent nga gis amul benn xabru yonent bu may yonent bi rek moom alayhi salaatu salaam yonent fi jaar moom kenn kese nga gis gis xabru hmm. loolu doy na teraanga yonent yi ñu fi jaar nañ bëri yi si des yëpp kon lool lii yàlla daf ko doon defal pour teraanga waaye jullit war koo gëm nag jullit war te dugg si yenn détails yi jullit dafa nekk nit koo xam ne bi dafa alif laam miim zaalikal kitaab laa ba fii hudan lil muttaqiin allaziina bi bil ghayb hmm. da ngay gëm loo xam ne bi gisoo ko xamoo ko waaye ñu wax la ko rek nga dàq sam'an wa taa'atan sami'naa wa wataana kon mbir la moo xam bi li ci yonent bi bi dafa yaa xaj xat comme ni nga wax kenn mën a ko saare fii incha allah ñu bàyyi li ñu ko incha allah jërëjëf oustaz Tafsir waaye oustaz Adi bëggoon na itam nga tëjee ci benn aspect boo xam ne feeñ na ci wàll ndax ñu ngi ci weer wi di weeru anniversaire julli ci weer wii la woon nga fàttali nit ñi rek ci weer wi la woon ci naka la woon guddi la woon weer wi la woon waaye ban bés la ci woon waaw oustaz Xasan gi ak Miraaj gi mi ngi xew ci weer wi di rajab ñu koy tuddee rajabul fardi hmm. ci ñaar fukki fan ya ak juróom-ñaar tombeek altine hmm. ndax yonentu bi sallallahu alayhi wasallam léppam altine la hmm. altine la juddu altine lañ ko ngénte altine lañ ko yónni altine ci la rañaan yi altine la gàddaay altine la yegg ca gàddaay ga altine tamit ci la wuyu ji boromam kon moom léppam altine la ni nga ko waxee la ndax yàlla jox na ko ko bokk ba tax ñu ne boroom xam-xam yi wax ca waaye benn bi rek laa ciy tudd mooy at miñ koy wara rañaanee dafa nekk at mu métti ci moom hmm. ndax ci même at mi yàlla da koo natt mu ñàkk ci ñaar ñàkk na ci bàyyi tëxam bi nga xam ne li ko doree ci juróom-ñetti atam ba ci juróom fukki atam yu manqué ay weer moo ko yar moo ko yor ndax moom yàlla da koo nattu ba muy nekk la muy nekk ca yaayam ci la baayam génn àdduna son koo gis mu juddu yaayam di dund ak moom juróom-benni at ñii ne ñeent yaay ja génn àdduna bàyyi ba maamam Abdul Muttalib yor ko ba mu am juróom-ñetti at Abdul Muttalib génn àdduna jël ko nag jox ko bàyyi taxam boobu. taalib ci ndénkaaneel maamam ja tabaarakallaahu mu ko moo ko yar moo ko yor bañ koy yónni mu ne lu la neex waxal. tànk sama loxob ndeyjoor njege naayowuma ko ci biir suuf kenn du dal ci sa kaw moo ko doon protéger coono bu nekk daj na kook moom bañ koy gaw mu ànd ak moom ca gaw googa embargo bu métti booba bañ ca génnee nag ay weer la ca bàyyi tax ba dund rek génn àdduna ñu ne coono bi daj doy na soxnaam sa di ab aawam di léppam di sayyidatuna Khadija moom tamit wuy si ko ñoom ñaar ñoo bokk mel ni at muñ génn àdduna ñoo bokk benn weer ñoo bokk benn semaine ñetti fan rek moo dox ci seen diggante yàlla nag saa yu la naree defaral day mel ni ku lay yàqal at ma métti nag ba ñu mutu sax amal xusni xatam njàqare yàlla nag ne ko nag danaa la woo ngan defal la teraanga dëfal la dalal la jox la teraanga yoo xam ne danga dem ba fàtte nattu yaag naqar yi nga xam ne tamit moom nga dundoon muy dëggal rek li mu koy wax toujours wala saw fa yu'tika rabbuka fatarda mu nekk jëmm joo xam ne tayam dafay gàccaal démbam démbam tamit dafay gàccaal barki démbam hmm. noonu la ko yàlla defal kon ci naqar wu tuuti wu métti woowa bokkoon na ci sabab bi lu tax maanaam yàlla rañaane ko hmm. waaye li ci ëpp solo ba mu ñëwee mu indil ñu ñib si na euh, sax li nga wax noonu ngëm ñi seeti Aboubacar ne ah yonentu nee na dem na foofa te ñoom gis nañ ne kat buñ daan dem doxa weer la bu ñuy ñib si doxu weer weer moom ci benn guddi mu ñëw def ko matu sax guddi hmm. benn lax rek la léegi nag ñu ne xanaa buñ dajalee waa penc mi yëpp doo leen ñemee wax lii mu ne ah kay <laughs> xéewala yàlla duma ko nëbbu ba ñu waxee Aboubacar mu ne ah man mii kay li may sikk mooy moo ko wax wala déet waaye bu ko waxee rek dëgg la mu ne man koo xamee dafa may jëlil ay xibaar ci asamaan ma di ko gëm mu koy wax waaye kooku bu ne ma demoon naa asamaan ma gëm ko mm-hmm. mu ne mu ngoog Aboubacar demoon naa sax asamaan ndax booba ba mu leen njëkk a nettali dafa ne loon damaa dem baytil muqaddas rek mm-hmm. ci lañ ko mujj di ko dàkkantalee as siddiq gars yi mu ne leen eh, bu ngeen ma bëggee weddi seen gëléem ya demoon ca Euh, baytul muqaddas romb naa leen àllarba dana ñëw bu jant bi dugg si rek ñoom dana tombe ñu dugg si màkka xawoon nañoo am tardement sax ñoom gëléem ya waaye téyal na jant bi sayyiduna muhammad mm. sallallahu alayhi wa sallam ba buy gëléem yi dugg si tombeek jant bi dugg ci ci niir yi di so waaye ànd ak loolu lépp taxut maanaam ñi gëm ko kon xasan mm-hmm. dara israa miraaj lim tënk mm-hmm. bari lu yaatoo yaatu la lu sakkan a mm-hmm. sakkan la dafay laaj ay waxtaan yi waxtaan yu bëree bari waaye danga xiir rek waaye li ñu ci imaam Tamsir indil wax dëgg yàlla mën na yóbbu loo xam ne mën nañ koo yóbbuloo xasan euh, jërëjëf oustaz Hadi jërëjëf oustaz Tafsir ci xaaj bu njëkk boobu euh, bu ko defee rek bu ñuy wax rajab nag dañuy dal di wax caabaan bu ñu waxee caabaan rek ramadan dal di ñëw weer woowu nga xam nañu ko mm-hmm. kon képp koo xam ne amoon na boru mën na dal di rek commencé di ko fay mm-hmm. oustaz Hady bu ko defee ñu ñëw ci ñaareelu xaaju émission bi mm-hmm. muy laaj yi fi rot kii dafay laaj nee na ndax jullit mën na tuddee doomam keneen koo xam ne du jullit waaw oustaz Xasan dafa bokk ci àq yi waajur ameel doomam mu tuddee ko tur wu rafet dafa bokk ci àq yoo xam ne bu yowmal xiyaamee boo dekkee ak sa doom da ngeen ko layoo ki seen kanam sa borom moo tax sa doom doo ko tuddee kenn ngir sa intérêt doo ko tuddee kenn ngir lim lay defal waaye da ko koo war a tuddee tur woo xam ne nii wu rafet la takka nga koy tuddee tamit mu nekk koo xam ne naw nga jikkoom. naw tamit mbaaxam. Euh, te yonent bi dafa daan wax ne rafetal leen nu ngeen tuddee seen doom yi gën ci tur yi ngeen tuddee seen doom yi nag mooy abdu bu ñu daafal turu yàlla wala muhammad ak xaruwaayam yi bu mu ci mën a xare moo tax mu daan wax ne xayrul asaami maa ubida aw xumida te nit ku nekk sa doom ju njëkk daal ki ci gën a yell nga tuddee ko ko mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax annabiyu awla bil muminina min an min anfusihim su ko defee kon koo xam ne bokk leen diine daal bu turam nga ñaawee wax dëgg yàlla oustaz Xasan duñ bëgg nga di ko tuddee sa doom ndax dafa bokk ci xàq yi nga ameel sa doom ji nga tuddee ko tur wa rafet hmm. même bu tur wa euh, rafetee tamit te fekk nawoo ko ca waroo ko koo tuddee ndax mag ñi dañuy wax ne koo tuddee euh, sa euh, sa doom mën naa jël ci moom juróomi ñaari jikko sëñ Babacar Si dañ wax ne mën naa jël ci moom juróom ñaar fukki jikko hmm. te nag xam nga ku gëmul yàlla nag boo jëlee jikko jooja kon dafay xaw a nekk leneen oustaz Xasan hmm. Euh, jërëjëf oustaz euh, Hadi euh, kii itam dafay laaj ne ndax jigéen mën na jiite mbokki jigéenam maanaam bu fekkente ne dañuy war a julli mbooloo ndax kenn ci jigéen ñi mën na jiite seen seen moroom oustaz Hassan dana am ci borom xam-xam yu koy saxal waaye ci mazhabu Malik bi ñu tënku d'accord benn jigéen di jiite génn julli jigéen mënta jiite julleeg farata mënta jiite julleek julleeg la mënta jiite góor yi kese mënta jiite jigéen yi kese mënta jiite ay góor yu ànd ak i jigéen donte ñu ngi am nañu ko borom xam-xam ya koy saxal dañ ne sayyidatuna Aïcha mos naa jiite ay moromi jigéenam mu nekk ci seen digg ba ñiy féetee ko ndeyjoor ñiy féetee ko càmmooñ mais imaamu maalim mi nga xam ne lu mu wax ci diine ji ñi bàyyi ko ci jëlut loola moo tax ngiram mi boo demee ci mu watta wala nga dem ci mu dawana yooyu yëpp ak téere yi nga xam ne yooyu ñoo leen jur d'accord ñu benn julli wala muy jiite ci wenn xeet moom daal ku ñuy jiite la war a doon ndax yonent bi nee na gën ci sàppe jigéen mooy sàppe ba nekk ca gannaaw kon kooku ku ñu war a jiite la Maryama ba ko alquran tuddee dafa ne ko yaa Maryam muqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raaki'in Oustaz Xasan jërëjëf Oustaz Hady kii itam dafay laaj euh, nee na ndax euh, mu tudd Hamidou Dieng nee na ndax mani yu sobe la wala déet Oustaz Xasan mani ci madhabu Malik sobe la euh, moo tax mën yu ba ba bu ñu lim sobe yi dañ ciy boole waale mën yu moo tax lu dul muy loo xamee lu bàyyi ko ca yonantu la ndax ñoom dañoo laab lépp lu génnee ci ñoom tamit loola lu laab lay doon waaye ku duhul yonantu yi lu génnee ca yow loola dañ koy jàppee mu nekk di sobe muy mën yoog yeneen yoo xam ne ni maanaam aju na ca moo tax mën yu ci bu Malik ñaari xaaj la ko def su fekkee dafa génn ci anam ak wér ak anam ak baaxoo borom dafa war a sangu ji su génnee ci lu duhut anam ak wér ci lu duhut anam ak baaxoo su fekkee da jafa àndoon ak njàpp njàpp la toj na na dem mu raxas kanamam te mu jàppaat dem julli ji waaye bu fekkee ci anam gële na nag dana waral sangu waaye ku mu ci ñaar yi nag moo xam la la génnee anam ak wér ak anam ak baaxoo mbaa anam baaxoo loola sobe la bu la taqee da nga koy dañal door a mën a jullee yére ba bu neexee ci sa yaram wi da nga koy dindi door a mën a julli li ko may julli ga du man a wér sax sax. Hmm. jërëjëf oustaz Hady kii itam dafay laaj euh, nee na dafa euh, doon dox ci mbedd mi mu for téeméer téeméeri dërëm léegi nag fekk xam naa tukulóor lay doon rek nee na fekk soxla na xaalis loolu fekk amul xaalis mu jëfandikoo ko. mu dem ba xalaat ne war na ko fay mu ne bu boobaa nan lay def day benaat jëlaat beneen téeméer mu fayee ko ko ak nan la koy fayee gisul borom. Oustaz Xasan for dañuy bëgg ku for rek na nga jéebaane li nga for ci place yoo xam ne nii boo ko fa jéebaanee feeñam soo ko fa jéebaanee feeñut ca duhut luy yàqu luñ mën a denc la charia day wax ne mën nga koo téereen ba déwén comme lu lu luy yàqu. waaye su fekkee lu yàqu la comme ay furwi yi asu boobaa danga koy sànk mën a téye la nga ko sànkee su borom feeñee nga jox ko loola su ne man kat da nga may jox lu toll ni li ma li ma réer woon nga dem jënd ca loolu lu tolloog moom ma jox ko ko kenn ku nekk dem su fekkee ne nag jéebaane nga borom feeñut diir bi yàgg na charia may na la nga seet ku néew doole nga sarax ko ko te yow nga yéene waa jooju moom téeméer ba yool ba yow nag su fekkee da ngaa yàkkamti woon ba saraxoo ko sa xel dem na li ko defoon daal sariya digle nga jëlaat ab téeméeru mën ngaa dem ba tey tamit nga saraxeel ko ko xiine ko yool booba noona boo ko saraxee woon nag borom feeñaat nga ne ko ah man kat maa foroon cinquante mille ci nangam mu ne maa ko moom joxe na ay màndarga yu tekki ne moo ko moom nga ne ko saraxee woon naa la ko mu ne man gëwma yool su boobaa da ngay yëkkati cinquante mille yi delloo ko ko te yow nga féetewoo yool ba jërëjëf oustaz Hady kii mu ngi tudd Aldoom Dieng nee na mu ngi laaj eh, ndax jigéen bu wonnee lor mën na sëy walla déet. Ah, sëy pour ànd ak. waaw. waaw oustaz Xasan bu wonnee lor mën naa ànd ak borom këram. charia eh, terewut ko ko. alquran ba alquran jeex. étape rek la lislaam wax ne bu leen ci ànd ak seen soxna yi mooy bu ñu yoree reegal te réegal ba daggagut wala ah kay dagg na waaye sangoo guñ. moo tax mu ne wasalunaka anil maxyidi qul huwa adan faqtasilu nisaa fil maxyidi doo maanaam gisoo ko ci alquran bu ma ne reegal nag doolu da nga ci xiyaasaale gësin ga rek boo amee doom te dee di gësin nga daggagul sañoo sëy ak moom bu daggee te sangoogul tamit sañoo sëy ak moom fu dul ñaari période yi nag soo soxlaa sa soxna mu soxla la rek mën ngeen a wéet bu sax sax jërëjëf oustaz kii itam dafay laaj nee na dafa seetlu bu fekkente ne ñu ngi euh, rob ku faatu nee na dafa am benn bis mu gis koo xam ne mu ñaan ci suuf si delloo ko ci xabru bi muy laaj ndax loolu orientation l'islam la wala déet. booba suul nañ ba pare wala. fekk suul nañ ba pare mu tibb ci suuf si nag am lu mu ñaan ñaan sottiwaat euh, sulliwaat nii sotti ko foofu neen xasan liñ gis ci sunna daal bu ñu gasee pax mi ba dugal ca néew ba sonnee gu ñoo sotti suusa ca moom ña jege pax ma nekk ca wetu bopp ba may nañ leen ñi somp ci suuf siñ gasee ci pax mi sotti sotta tibaat sottiwaat ba muy ñetti yoon Malik ak imaamu Shaafi yu Abu Hanifa yëpp ñu ne boo sottee bu njëkk mën ngaa wax ne min ha xalaqanaakum tibaat sottiwaat ne tibaat sottiwaat ne wa min ha nuxrujukum loolu moo nekk ci xadis bi doonte sax ñi toppatoo mbiram xadis dañu xadis bi sax daif la waaye lépp lu ñu xadis daif la euh, maanaam te la muy digle di jëf joo xam ne jëfu ngëneel la sopp nañ ko jëfee loola looloo waral loolu ba léegi bëgg nañ ñi di ko defee moo tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko xadis boobu ibnu maaja indi na ko ne suul nañ nit ga mu nekk ca pegg ba tibb suuf sotti tibbuwaat suuf sotti ba muy ñetti yoon waaye nag lam doon wax moom boroom xam-xam yi waxuñu ko Malik nag ak imaamu Saafi Abu Hanifa ñoo ne ñoom sopp nañ booy wax gannaaw bi ngay sotti suufi ki ñetti yooya amul jot li ma na fekk nga jege rek te tolloog bopp ba kon mën nga ne minha xalaqnaakum dukum wa minha nuxrijukum su ko defee taaratan oxra mu yem foofa oustaz Hasan hmm. jërëjëf oustaz Hadi kii itam dafay laaj mu ngi tudd Souleymane Tinking Diallo nee na euh, ki muy liggéeyal moom est-ce que bu ko joxee azaka nee na kooku daf koy faral di jox azaka pour mu tabaskee muy laaj ndax kooku muy liggéeyal moom ndax mën na ko jox azaka wala déet waaw ki ngay liggéeyal kay bu xamee ne bokk nga ci juróom ñaari xeet yi alquran tudd ne war nañ leen a jox asaka ci inna innama sadaqatu lil fuqaraai wal masakina balaa yaat ya jeex yëg nga ne bokk nga ca su boobaa kay mu yëkkati asaka ja jox la ko dara ëppul ko yoon waaye bu la koy jox nag na la ko joxee ngir li nga ca bokk waaye bu mu la ko joxee ngir li nga bokk ci entreprise am bi mu jublu ca pour téye la ko jublu ci tamit pour neexalee la ko loola sariya du ko nangu da nga koy joxee rek en tant que dafa bokk ci ñooñ ñañ war a jox euh, nga nga nga nga joxee ko ko noonu waaye bu ko joxee ca anam googa bëgg rek mu téye la nga téye ko ak di seddal xolam pour loolu loolu boo ko bëggee da ngay génnee li nekk sa poos waaye yow li nga koy jox moom moo ko moom moo tax kon buy ci anam googa dara néew ci buy ci geneen anam ga nag xasan du gën daganut hmm, jërëjëf Oustaz Ali kii itam euh, faratay koor lay laaj koor euh, ñaareel boo demee ci fuqaaw ponk lañ koy wax dañuy wax ne koor ñaari ponk rek la xam muy xaruk fajar ak bàyyi lekk bàyyi naan ba fi fajar xaree ba jantu sox moom la alquran ne summa atimu siyaama ila layli ñaar yi rek mooy ponki koor mooy yéene gu jiitu xaruk fajar nga gunge ko ñàkk lekk ñàkk naan fi fajar jooju xaree ba fi jant bi di soxee ak tamit lekkoo naanoo joteekoo ba jant bi sox ñaar yi rek mooy ponk ya ponk yi nag ëmb nañ ay ay sunan yu baree baree bëri bëri ak ay mustahabaat sa xasan hmm. jërëjëf ustaasaat yi kii itam dafay laaj nee na ndax euh, nit ki bu amee soxla ci biir julli gi mën na ko ci ñaan wala déet waaw mën ngaa ñaan ci sa biir julli ndax bi ngay taaya man ngaa ñaan nga xam ne fi nga gën a jege sa borom ci wasjud waqtarib man ngaa ñaan su ko defee kon ñaari place yooya mën nañ caa ñaan waaye am na ci place ki julli yoo xam ne dañuy sib nga ñaan fa lu mel ni tey kàbbaar jàngagoo fatiha di ñaan tere nañ la ko nga jàng fatiha ba ci digg ba di ñaan tere nañ la ko doy lool ñaan ak fatiha ga rek ihdina siratal mustaqim ndax hadisul qudsi yu ba nee na yàlla nee na séddoo naa fatiha maag sama jaam bi li ko doree la ji ba ci eh, maanaam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu man maa ko moom li ci des nag yow jaam bi seetal loo bëgg nga ñaan ko ma defal la ko ñaan ñaan jaam bi nag yàlla rof ko mat mu delloo yàlla ñaan nga ne ko ñaan ma ñaanal ma li ma lay ñaan yàlla ne ko ñaan ma njub rek boo ko xasee àkkee njub amoo dara waaye bu ko bàyyi woon ak boppam manquéem ga dana fa nekk ñaan xaalis mbaa muy ñaan ab séet mbaa muy ñaan fan wu gudd mbaa muy ñaan état ak yu kenn xamul waaye dafa ne rek ihdina siratal mustaqim kon loola moo tax foofa fatiha duñ fa ñaan duggagoo ci saar mbaa nga dugg ca saar wa yooyu doo ca ñaan ab rukkoo duñ fa ñaan dañ fay sàbbaal kon daal booy julli ñaari parab lañ bëgg nga ñaan ca fi ngay taayaa mën nga faa ñaan fi nga demee timit tabaarakallaahu di fa sujjoot mën nga faa ñaan rabbana atina fi dunya xasanatan nag ëmb na ñaanu xiiwu àdduna lépp ëmb na timit xiiwu ñaanu àllaaxira lépp ba tax na loolu dugal na lépp ku ko ñaan bàyyi woo genn ñaan Oustaz Assane hmm. jërëjëf Oustaz kii itam ci miiras bàyyi jabar ak ay doom ak ñaari way jur muy laaj ku nekk ñaata lay am xasan comme doom am na rekk jabar ji moo moom sumun ba mooy juróom-ñetteelu xaaju alal ja comme doom am na rekk baay ji ak yaay ji yëpp kenn ku nekk sudus lay am mooy mooy juróom-benneel bi mm-hmm. su boobaa nag dangay jël boo jëlee ñaari juróom benn tamaasul la ñuy jàng miraas ñoo ko xam dafa am nu ñuy wutee nu ñuy nu ñuy nu ñuy seetee masala mi fu muy génnee mm-hmm. am am ndaar bu ñuy tuddee tamaasul mm-hmm. am bu ñuy tuddee tadaaxul am bu ñuy tuddee tawaafuq am bu ñu tuddee maanaam euh, te mu ngoog tabaayun su boobaa nag boo jëlee kon ñaari juróom benn euh, kon da ngay jël juróom benn ak juróom ñett ñu def nga ne bi ma jëlee juróom benn dugal ko ci juróom ñett ñaaray des ma jël ñaar dugal ko ci juróom benn ñett yoon mu jeex ñu ne kon tawaafuk bi nisif la te tawaafuq bi nisif nag dara bu nisfi ahadima fi kamaali aaxar la lay jox juróom-ñett genn wàllam ñeent la nga ne ñeent ba muy juróom-benn yoon wala nga ne juróom-benn genn wàllam ñett la ñett ba muy euh, juróom-ñett yoon yaakaar naa boo ko seetee du sori euh, ñaar fukk ak ñeent. Hmm. foofa nag nga ne ñaar fukk ak ñeent bii divisé par huit nga jox soxna sa ñaar fukk ak ñett bii divisé par six nga jox ca baay ja jox ca baay yaay yaay ja la ca jox. bu ko defee nag la ca des nag doom ya séddoo ko góor ñaar jigéen benn ba mu jeex. Euh, itam dafay laaj euh, nee na dafa dafa doon julli ci ginnaaw imaam mu juum wax muy laaj ndax dafay tënku ci julli ga bu paree mu fay wala day kàmbaraat mu mattale julli. wax jooju su fekkee tayut ko na continuer du julli ga wér na jamañ na waaye imaam ak koy xenul comme jot na lu mat ab rakaa ci gannaawam. su fekkee wax ji moo ko tay yàqu na lam commencé woon a xam yàqu na buy ab rakaa wala ñaar na dagg loola mu kàbbaaraat jéem a sof jéem a sosaat waaye dootul mën a sofati lam njëkkoon a xam niil su paree nag euh, ba imaam sëlmal gannaaw bi mu kàbbaaree lam jot euh, mu fay la ca maanaam lay def waaye fekkee tayu ko nag imaam dana ko ci mën a yóbbuwaale ki jamaj ba bu ko tayee lam njëkkoon a xam yàqu na dafay kàbbaaraat mu sosaat waaye du ko sofaat sa xasan hmm. jërëjëf oustaz Hady kii itam dafay laaj nee na ndax hadiya bu ñu koy jox nit te fekk xamuloo ki la koy jox ndax fàggoo na ko fule wala déet muy laaj ndax loolu am nga ci responsabilité wala déet. Ah, bu ko tënkee ci hadiya rek da koy xatal bépp xaalis rek. Hmm. Euh, nga mën a xam fi mu ko jëleek yooyu yi ci bari sariya du la ko togg rawatina ci suñ jamono jii. Maam Alaaji Abdoulaye Niass wax na ci téere bu ñu tuddee Mufidul anaam biñ ko laajee alal mu ne cosaanal alal daal bu njëkk ba lu dagan mooy loo xam ne xam nga cosaan la xam cosaani cosaan la mu ne mujj gi jamono yàqu ba dagan mooy loo xam ne xam nga cosaan la mu ne ko mujj gi jamono yàqu ba lu dagan mooy loo réere cosaan la jox nañ la daal xawma fu mu jëlee man sama yoon nekku ci ndax boo ko gëstoo rek jamono ji nag daanaka li Seex na Tijaan yi waxoon dañ toll ci jamono joo xam ne ko fi bëgg a teet yenn yi boo moytuwul xiif bi ray la moo tax kon yow daal man jox na ma fu may def laa xam may xaw ma ki ma jox fi mu jëlee waaye nag ñun ba wëtu danañ toll ci jamono yi waxatuma loo réere cosaan la waaye loo réere réere lu da nga ko réere réere lu daanaka fu mel nii foofu lañ toll kon loo réere cosaan la rek nag euh, dagan na la boo fa neexee nag di ko gëstu te kenn toggul la ko ba nga xam ne lii cosaan la dafa xaraam soo ko lekkee dafa xaraam su boobaa kon dagana tut mm-hmm. kon loolu euh, mooy Oustaz Hady kii dafa laaj ñaari mbir ci benn laaj dafay laaj nee na oh, lépp ci banque ak ya cay aju ci wàllu ay intérêt yu mel noonu ndax dagan na ak natt yi ñuy def lu ci euh, giseenu lislaam natt daal su fekkee ña ko séq yëpp gore nañ gore gu day ni liñ ma buñ ma teggilee ña ma teggiloon ñëpp danaa leen nattal dara nekku ki ci bunta dimbali ko dimbalante rek la ndax maa ngi nii am naa sama soxla te li ma xam mateewu ko ñu ne nañ boole ñun ñii ñëpp jox la nga booleeg li nga am nga dem faji sa soxla soo paree ñun ñëpp ñu boole boolewaat jox la yow oustaz xasan nga dem fagi sa soxla ñu def ko noonu ba natt bi yëpp wër dafay dugg ci bunt wa taawanu alal birri wa taqwa waaye su fekkee ne nag bu mën na nattelee nga teggi doo nangoon nangoo nattal jaaree fa daw keneen ka noona nga lekk xaalisu jàmbur yi te di maanaam delloo lale te ñu xam ko kooku dafay dugg ci wala taawanu alal ismi wal udwaan kon loolu dafay xaraam bu fekkee nag ci wàllu banque la banque daal balaa dagan ab jullit na fekk jullit ba banque soo banquee ci loo liggéeyee mbaa nga banque ci foo dëkk mbaa nga banque banque ci loo dundee mbaa nga banque ci loo war te amul kenn ku la mën a lebal sans intérêt banque bi rek moo fi sës su boobaa charia du la tere nga dem lebi ca intérêt yañ la ca teg te nga ne attan nga ko pare engagement ya nga jël ko tamit dara niw banque bi tamit nag nga dem denc sa xaalis ñi fay ñi tegal la ci ay intérêt jëlal lépp bu leen ko bàyyee jëlal sa xaalis bi nga moom nga lekk intérêt yee ca tegu nga jaamu ca yàlla jaamu ca yàlla nag mooy nga seet mbooloo sa morom mi jaam yi ñu néew doole nga jox leen ko euh, kii dafay ciitale amul lu mu ca def kii day ngénte kii bâtiment baa ngay bëgg a daanu nga def ko ca loola sëñ Fall dafa daan wax ne topp yàlla ak jaamu yàlla duñ benn topp yàlla sa digganteeg yàlla jaamu yàlla sa digganteeg jaamam yi kon intérêt banque dañ ciy jaamu yàlla waaye duñ ca topp yàlla kenn du ko def dépense kenn du ko xottee kenn du ko tabaxee sa kër kenn du ko jël di ko def ci yenn yi waaye danga nga cay jaamu yàlla seet ku néew doole rek nga jox ko ko waaye bu leen bàyyi lool di leen. Hmm. Uh, jërëjëf oustaz uh, Hadi kii itam dafay laaj uh, nee na dafa am benn cas ci wàllu suuf dafa am suuf soo xam ne dañu ko doon jaay benn waay bi ñu ko koy jaay rek mu daal di tàmbali di tabax sax mu daal di tàmbali di di di ca di ca tabax pour dëkk ca. léegi nag ci biir loolu fekk mitewu ko woon sax pour moomeel ba toxu ci moom waaye ka ko njëkkoon moom fekk ay nit a nga ko doon topp ay bor ba ñu mujjee saisir kër ga jël ko léegi nag moom mi nga xam ne moo ñëwoon bees doon jënd kër gi njobootu jooju ne il faut nga fay at yi nga xam ne amoon nga ko fi muy laaj ndax loolu tegu na ci yoon anam anam njaay la woon mu mën na mujjee nekk location xasan la lim li mu intérêt wu ci intérêt kër googa ci dëkk walla sax mu doon ca luye ñu ko cay fay suñu demee ba sisir li nga xam ne jaayoon nañ ko ko ndax moom sonnutoon koo def ci turam te sonnuwutoon a joxe xaalis ba intérêt booba mu am ca du ko du ko fay du ko fay euh, fuqaaw yi dañuy lim ne juróom juróom la ñuy tudd ñe seen ya dafay delluwaat ca ñoom waaye du delluwaat ca ka ko joxoon buñ la jaayoonam njaay moo xam ne wérut heure juma la muy ab oto nga sonn caa taxi wala soxla wala ab jakarta la wala lu mën a doon wala kër la nga sonn caa dëkk bañ koy vérifier ne heure biñ ko jaay njaay mi kan ndeke wérutoon ah dañuy tas njaay ma rek waaye la ca sonnoon a bénéfice woo kenn doo la doo ko delloowaat kenn nag booye boo luyee ko fa ñuy fay la ca xaalis tamit loolu da nga koy lekk buñ la jaayoon dara nga ne damay seet ndax amul ayib su baaxee ma jël bu baaxul ma delloo leen dem di seet ndax amul ayib nga sonn caa jariñu buy kër nga dëkkaale buy timit ab jakarta ngay dawalaale ànd ak di luye seet ndax dara yàquwul ak yooya buy aw fas timit yaa ngi koy jariñoo ndax dana mën a dawam day day day bañ euh, bu gannaaw si nga dem delloo ndax danga caa gis ayib waaye yow sosoo ko ca la nga ca jariñoo timit doo ko delloo dara nag ba njaay ma fasu sonn na goo fay di ca jariñu yàlla dogal lañ la jaay woon far ñi ñëw sisir ko ah dañu jël sisir ga rek delloo ko ka nga xam ne moo jël sisir ga waaye yow la nga ca sonnoon a jëriñoo tamit duñ ko delloo xaat waa jëla ko joxoon Oustaz Xasan hmm. wala ma ci fuqaaw yi dañ koy lim hmm. yoo xam ne seen xalla ya day ca hmm. ka ka ka ka ko waaye du delluwaat ca ko ko jaayoon Oustaz Xasan euh, jërëjëf Oustaz Hady kii itam ci anam googu lay laaj sax nee na euh, bu amee bu fekkente ne dañ koy dénk alal ndax mën na ca di commerce di ko jaayaat pour mu yokk bénéfice ba mu koy jël te bu ñële soxla mu jox leen bu fekkee euh, kii commerce ci alal ju ñaar ñii benn muy ku ñàkk ku ñàkk la ñu jox la alal nga cay commerce te li ngay commerce bu yàqoo mbaa mu doo ko mën a fay dafa xaraam boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci su fekkee ne nag yow ku woomal nga te ku rafet nooy fayee bor nga ñu jox la nga ci commerce te bu yàqoo mbaa mu seey da ko mën a fayaat sib nañ ko Maalik nee na nag la nga ca xam ca bénéfice buñ ko boo ko saraxee daal moo ëpp cofeel ki ñun borom xam-xam yi di imaamu Maalik ak ña nekk ca ngiram ma kon daal kiñ dénk alal nga di ca commerce ñaar ñi kenn la ca suy ku ñàkk bàyyil xaraam na ndax comme bu yàqoo wala mu seedoo mën a fay baaxul su fekkee ko womal nga tan ni man rafet rafetal nga jëf la seey mën ngaa fay ah sib nañ ko soo jëloon la ca euh, tonoxoo lépp tamit nga lekk ko dagan na def nga luñ sib rek boo ko saraxee woon baa nga saraxee ca nag tabaarakallaahu yool ba gën a yaatooti soo ne damaa néew doole naa ko saraxoo tamit sariya du ko bañ mu sax sax hmm. jërëjëf Oustaz Hady waxtu yi dab nañu waaye ñu tëjee ak laaj bi xam naa laaju tukulóor la sax encore nee na dafa am koo xam ne dañu ko takkaloon jabar léegi bi ñu ko ko takkalee daal mu daw bi bi mu dawee nag ñu ne kon comme que daw na xaaral jabar ji ñu jox ko rakk ji ñu daldi ko puus rakka ji rek noonu mu ne ndax loolu ajoo na formalité wala yéenee day dal di transformé rek nekk la xasan euh, jigéen euh, ku mën a doon duwul bono duwul duwul marchandise mu ñuy puusante <laughs> dafa am ma dafa foor ci wala xadd karam naa ba nii aadama charia day wax ne ana kiñ ko mayoon ndax sonn nañoo wéet ñu ne ah kay sonn nañoo wéet waaye moom bëggatut sëy ba tas daal la bëgg wala dem na mbokk yi nee na mënatuñ koo xaar ko xamul fu mu nekk mënatuñ koo xaar ñu tas ko suñ ko tasee nag su boobaa ndaw sa dafay dem mu jàpp yadda comme ànd nàkkale bu jàppee yadda nag ba set bu jàkk bu rakk ji bëggee nag joxewaat can mu amee seede kilifa ga maye ko ci ñeenti ya xam ne mooy tax sëy mën a fasu sëy mënta fasu ci lu dugut can wa aatu nisaa saduqaatihinna nixlatan sëy mën digalal kilifa fankihuhunna bi idni na sëy mënta fasu ci lu duhut seede wa ashhidu zaway adlin minkum sëy mënta fasu ci lu duhut siixatu baat buy tekki damay ñaan baat buy tekki tamit may nañ la mu mën a nekk su fekkee ne nag yàlla dogal naa may nañ ko mag ja daw na sonn te wéet ak moom te gis nañ ne kii ku dul ñëw la jabar ji rek a tax mu daw mbokk yene kuñ may jabar ngay daw ñun mënutuñ koo xaar ndax kii xamuñ fu mu dem ñu tas ko rek su ko defee nag bu ko rakk ja bëggee joxe xat ñuy seede def lépp su ba fekkee mag sonn naa na joxe can 500000 wala 200000 dañ leen di remboursé genn wàll ga rek boo defee genn wàll googa nag rakk ja mën na caa déparé nag moom ak canam waaye nag comme wéetuñu du ca jar mu lakum alayhina min iddatin taataduunaha la alquran wax kon mu mel ni xasan li ñu mayoon ci waxtu bi jeex na gannaaw bi ñu sante suñu gan gi imaam tafsir Thiam sant tamit ñi nga xam ne ñu ngi jokkoo ak ñun ci facebook bi di yónnee seeni laaj hmm. sant la yow mi ñu koy jottali euh, li ci leer yàlla la lu ci lëndam gàtt xam-xam ak ñàkk fasaax la in uridu ila al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu li unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aleykum salaam fatawa ani diini wal xayaa barnaamijun yuqaddimuhu al-aalimu al Fatwa di émission bu leen rajo télévision Walfajri di defal ay bés bu jot ci waxtu wii ak oustaz Hady